ba ñëpp jàmm ñëpp ngi ci jàmm alhamdulilah jërëjëf ba jaajëf Walf Quotidien lam xëyee tey ci xëtam bu njëkk waaye a ko ci ñi a gi ne ñoom ñii ñëpp dafa am góom goo xam ne moo leen topp yéen a gi moo xëy fësal loolu yi leneen loo xam yéen a hmm. gi ne moom soxna si ma woon démb fële ci diwaanu Diourbel fesal na fa mooy fexe ba Sénégal boo xam dëkk industriel lay doon mm. te bëgg yéenam ak bëgg-bëggam mooy Sénégal ñu fi defere ne ni eh, made in Sénégal noonu la ko yéenekaay gii di wàllu fukkati ñi nga la mu dafa xëyee dalal Khalifa Ababacar Sall ci laaj ak tontu gi dox ci digganteem ak suñu naatango yi moom candidat bi jëm ci élection présidentielle yi ma ngay indi ay leeral jëmale ko ci tuuma yi nga xam ñu koy jël di ko gàll ci ndodom wax ne ku jegee la nguur gi la nee na loolu dara amu bu fekkonte ne bëgg naa dem ci nguur gi kon bu yàgg la fay dem noonu la ko mm-hmm. yéenekaay gii di l'enquête xëy fësale yéenekaay gi nag wax na ci taxawaayam ci biir Yewwi Askan Wi wax na tamit ci euh, conclusion assise nationale nee na bu yàlla defee kon mu jotee ci bopp réew mi li ci ëpp daal foofu la koy tibbee ngir doxal Sénégal noonu la ko yéen gi di l'enquête xëy fës Dakar euh, keneen aussi koo xam dafa samp ndëndam Mouhamed bu Abdoulaye Dione lay wuyoo yéen gi ne am noom homme de défi la euh, nit la koo xam daanaka bu xasee forcé ba jàpp mbir bu fekkente ne sottiwul daanaka du ci euh, du euh, yeneen ak bëgg-bëgg mooy wutu président Macky ci bopp réew mi ana kan moo di Mouhamed Boun jaar jaaram taxawaayam ci réew mi portereem mu ngi ci yéen i kaay gii di l'info donc euh, critique Euh, Mouhamed Boun Abdallah Dionne ak Mouhamed ak Amadou Ba daanaka ay xarit la woon ñoo bokk doon benn gouvernement mm-hmm. waaye tey a euh, mm-hmm. euh, moderniser cité ak yi def na ci nag ay milliards yu takku tolluwaay nag projet boobule ak programme kaay gi di la soleil moom la xëy tey ji mandat. Euh, réunion du conseil national de l'APR ah, ñu ngi ko jàpp ni ki alxames ma ngay amee fële ci King Fahd Palace moom président Macky nag fas yéene fa tabb Amadou Ba waaye tamit fas yéene fa remobiliser les troupes bi yeneen kaay gi moo xëy fësal loolee ci jamono jooju la waa F24 ñoom ña yëkk seen kàddu di sàkku ci président Macky ngir mu wax ak administration ñu jël fiche de parrainage jox ki di Ousmane Sonko ndem yoon àtte na ba noppi noonu la ko yéen kaay gii di la mandat xëy fësal euh, le quotidien le quotidien yéen ne fexe ba Ousmane Sonko delluwaat ci liste électorale yi ñi nga xam ay alliés Ousmane Sonko lañ ña ngay waaxu président Macky Sall muy laakos ak M24 ña ngay saakoon ci président Macky Sall mu wax administration ndem yoon àtte na nañu jëfee li yoon wax wax noonu la ko yéen kaay gii di le quotidien xëy fësal yor yor bi lam tibbal capitaine Touré mhm. ma nga yëg wax ne ne léegi moom muy cour suprême amatuñu lay ci candidature Ousmane Sonko fa la hmm. dafay bokk noonu la ko yéen gi xëy fësale yéen gi nag xëyee dellu si waat ci Bougane Gueye Dany investiture am euh, euh, di koy taxan ci benn téere mu duppee euh, tekki noonu la di yor yor xëy fësale source a la mu fësal source a yéen kaay source a ne fu mu toll waajal hmm. dellu sëb kii di Karim Meïssa Wade noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale nañ tey ji permanence bi ñu tuppee ndam si yàlla si Amadou Lamine Badji fu mu candidat xajamal candidature kii ak Karim Meïssa Wade wax tamit taxawaayam ci élection présidentielle yi di ñëw lépp daal loo xam ne bëgg ngeen ko xam ci Karim Meïssa Wade mhm. yéen kaay gi source a dafa xëy tey ji euh, ci amal ab taxaw seetlu ci moom taxaw seetlu geneen 24 heures ne ay ñaari weer gën ngaa bëri moo des ci élection présidentielle yi di ñëw waaye élection la yoo xam ne dafa bëri loolu ay jiixi jaaxa bari na ci ay questions yoo xam ne nii ñu ngi ciy samp maa ngi ñu ko ciy posé waaye dafa dina jafe loolu ñu am réponse yi noonu la ko yéen kaay gi di 24 heures xëy fësale euh, Sud Quotidien Sud Quotidien yéen kaay xëy dellusiwaat ci euh, promotion bonne gouvernance ak état de droit ñu ngi ko doon xaar nag suñu administration waaye tey ji loolu wane li ko waral nag moo di politique bi nga xam dafa et méthodique ECADOM di wax ne bu fekkente ne yenn décision yi politique moom moo jafe lool mm-hmm. ñu appliquer ko noonu la ko yéen kaay gi Sud Quotidien bi nga Euh, ñu bis ñu si bari si ñoom nag ñu ngi dem ci euh, mbapat yeeg yeneen yu ni mel di ko jaay 350 ba yàpp 500 francs yéen kaay gi ne lii nag bu dakkul nañ jàpp ne Sonacos moom ci tëj buntam la jëm noonu la ko yéen kaay di Direct News xëy fësale euh, réew mi quotidien avortement médicalisé fii lu war la ñeneen ñoom daañu jàpp ne loolu du mm-hmm. xëy fësale Abdoulaye euh, Turbine Sénégal mooy de moo xam ne tey ji Sénégal yi añituñu ba reer añituñu maanaam ndékkeetuñu ah. ñàkk reer ak ndékkee amatuñ ko waaye li fi gën a garaaw mooy que fu mu toll nii dem nañ sax ba léegi ndox muñ naan sax mëntuñ ko am léegi. feebar moom faju waxaale wuñ ko muy situation bu jéggi dawee boo xam ne yéen kaay euh, Sénégal yi ñu ngi koy dund jamono ji tax yéen kaay gi di la tribune xëy tey euh, hmm. euh, rek teg nañ ci loxo lu ci tolloog juróom-ñetti kilogramme ci cocaïne hmm. or ko ne ay étranger lañ noonu moom lam ñu dikkee wax ci coupe d'Afrique des nations ñaar fukki fan juróom moo ci des yéen kaay gi ñëw di ñu xamle que ñi nga xam daanaka jamono ji dañoo seen yaram dafa sutante uh-huh. nekk infirmerie muy ku ci mel ni Sabali ku ci mel ni Nampalys ak kii di Séni yéen kaay gi ñu jox seen nouvelle ah suñu lamb moom waaw suñu lamb yéen kaay dafa xëyee dellu si waat wax ci combat nga xam ne euh, war naa dox ci diggante euh, rëg-rëg ak kii di Bombardier B52 yéen kaay gi neexul ba neexul waaye rëg-rëg mu ngi ci sous pression noonu la ko yéen kaay gi suñu lamb xëy fësale